xam ne moom la Sénégal yëpp jaaxle mooy ministre de la justice buy politique ministre de la justice buy politique kooku dañ koy déplorer en tant que ministre de la justice justice sa yoon waru ca nekk magistrat yi ak procureur yi ñoo am droit wax ci affaire dossier boo xam ne nii ku ne xam ne dossier politique la dossier politique la bu Ismaïla Madior Fall jëlee taaw am audace jàkkaarloog sénégalais yi di wax naan Ousmane Sonko il est coupable kooku moom dafa xamul lan mooy Sénégal dossier Ousmane Sonko bii bu fekkoon bu ngeen amoon jom du ngeen laajaat beneen dossier ndax dossier Adji Sarr warul na yàpp Sénégalais yàpp Sénégalais yi ba jël dossier Adji Sarr fukki nit ak ñeent deej ay liggéey yàqu ñu taal ci ay Auchan taal ci ay ay station Sénégal dugg ci guddo boo xam musul am ñu jëlaat beneen dossier boo xam ne ni moo gën a bëri tappale mooy dossier Mame Mbaye Niang yaakaar ne li ñu bëggoon ci dossier Adji Sarr amuñ ko ci woon dañ ko am ci dossier Mame Mbaye Niang dañuy nax seen bopp seen dossier politique yi ak seen tappale yi nañ ko téye réew mi kenn du ko foye du ministre de mooy foye Sénégal du ministre de la justice mooy foye Sénégal du suñ du suñ justice mooy fooye réew mi ndax réew mi dañoo xeex ba am suñu démocratie am fuñ ko fekkoon te fañ ko fekkoon képp ku bëgg a dox suñu diggante suñu démocratie danañ la jaay suñu bakkan dellal na xam ne ñun réew mi rek moo ñu ñor. d'accord euh, nga xam ne mooy te bëri na ci ay manifestations. non xam nga Macky Sall dafa comprendre dafa comprendre dañ ko jox ay messages yu bari mais Macky Sall pour mu doon nit day dem ba mbëkk dana dañ naan nit dana dof te duñ xam ne dof na mais président Macky Sall bu fekkee ne dafa yaakaar ne intimider Ousmane Sonko wala jàpp ko di ko tëj loolu mooy tax moom mu am ndam ci askanu Sénégal day nax boppam. am réew duñ ko caaxaane Macky Sall day foyee Sénégal président Macky Sall day foyee day foyee Sénégal. léegi papa le CES bi la war a dem à procès Mame Mbaye Niang ka ñu condamné ko. non non non non xoolal dossier du ko gaay ah, président président Abdoulaye Wade daan wax ne dossier politique kenn du ko ay tribunal dossier politique la réponse politique moo koy faj ndax ñoom réew mi moomuñu ko justice procureur de la république magistrat moomuñu réew mi moomuñu loi yi loi ko bind noir sur blanc bu fekkee ne bëgg saa bu ñu bëggee régler dossier régler problème bu Macky Sall jaare ko ci justice jaare ko ci ay magistrat loolu dañuy nax seen bopp Ousmane Sonko dafa passé fu koy éliminer ay élection bu fekkee ne moo nekk xam ne réew lim ci bëgg dara du ci am dama ko waxoon ne ko président Macky Sall mu ne ma ne ko réew ku ko taal yow lañ koy xamee loolu dafa war a leer ku taal réew mi képp ku def ba réew mi tàkk ci say loxo yow la ñuy xamee Sénégal yaa ko koo mën a doon réew mi ku ko taal yow lañ koy xamee réew mi ay mag dañ fiy liggéey suñu démocratie dañ koo xeex ndaw ñi am nañ beneen jox beneen yitte boo xam ne nii moo gën dossier politique suba dossier politique ngoon liggéey ndaw ñu liggéeyuñu hôpital yi baaxut mbay mi doxut sàmm gi doxut yow ngay jël ay dossier politique foo toll dossier politique dossier politique loolu saa sës dafa dafa dafa doy Macky Sall na arrêté ak gouvernement am ak ak ministre am yi nga xam ne nii ay ay ay ay euh, instrumentalisé suñu justice instrumentalisé suñu police gendarmerie loolu nekkoon na arrêté senegal lañ doon bañ démb di ko bañal Ablaye Wade dañ koy bañ jusqu'au bout duñu masa nangu réew mi ku bafoué suñu démocratie duñu nangu ko dul moom rey suñu démocratie duñu nangu ko rey suñu insi suñu justice bi. papa ñenn ñi tam yéen ay nitu violence à chaque fois Sonko maanaam non Ousmane bu dee nit ku violence dañ naan ma kii Ousmane Sonko mas na ko violé amut buñ naan ku violence mooy waa Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall. ndax ñaata ay militaire ak ay gendarme kan moo leen rey Didier Badji ak fa kan moo rey Ousmane Sonko leen rey kan moo leen disparé lu Ousmane Sonko leen disparé lu François Mancabou François Mancabou kan moo ko rey Ousmane Sonko ko rey suñu détenu politique yi ñu tëj ci kaso bi kan moo leen tëj Ousmane Sonko leen tëj ah waa Benno Bokk Yaakaar lu ne def nañ ko fi kenn musu leen woo suñu rapport Cour des comptes yaa ngi nii rapport Cour des comptes yi ñu ngi ciy dégg ay milliards senegal justice Sénégal ne pat lijjantiwuñu jafe-jafe Sénégal yi coonay Sénégal yi ci Covid 19 jël dossier Adji Sarr wala dossier ay ay Mame Mbaye Niang bëgg a fontoo Sénégal yi loolu nañ ko arrêté. réew mi dañ koo jàpp am ci démocratie xeex ba mu yëg si fii justice Sénégal maa ngi lay delloosi justice Sénégal na ngeen bàyyi na xam ne Afrique Afrique yëpp magistrat yéen a ko taal. te ma seen meeting bu euh, ne mooy Amadou Sall euh, na ni yéen seen manifestation yi nga xam ne bëgg ngeen ko def ci diwaanu euh, leen ko nangu est-ce que bu tey bu ñu leen nangulee seen méga meeting bi ragal loo ni suba wala gannaaw suba ñu bàyyi leen seen manifestation xam nga dafa mel ni moom day maye moom maître Amadou Sall ancien ministre de la justice politicien moom dafa mel ni ñun dañ koy ñaan ñun ñaanuñu ko maanaam coalition Yewwi Askan Wi ak président Ousmane Sonko ak ñun ñaanuñu ay man ñaanuñu xam nga lu ñuy li ñu def suñuy droit la ñuy laaj droit maanaam droit citoyen bu nekk am nga droit boo bëggee def sa manifestation nga nga déclaré mais ñaanuñu ku ñaanul nag ku ñaanul na yow du yow yaay maye wala ñu maye en tout cas li ñu constitution bi may li nga xam ne loi moo ko may maanaam citoyen bu nekk danañ ko jël ndax bu Macky Sall bu doon ñaan rek duñ yegg si fii bu fekkoon ne luñ luñ ñu xañ ñu bàyyi ko mu dem Macky Sall kon parti bi tey rey na parti bi ndax parti bi ak coalition bi dafa doon coalition boo xam ne sénégalais yaa ko moom justice maanaam population Sénégal ak jeunesse bi ñoo moom coalition bi bu fekkee ne xamul ne sénégalais yaa ko moom dañ koy xaar ba le 16 le 16 nag maa ngi déglu justice Sénégal magistrat yi maa ngi leen di déglu bu fekkee ne bëgg-bëgg Macky Sall ak bëgg-bëgg Benno Bokk Yaakaar muy benn benn groupe de personnes moo leen gënal askanu senegal ba ngeen dugal Sénégal ci guuta taal réew maa ngi leen di bàyyi xeloo xel le 16 incha allahu taala da ngeen wax ne li leen Ibrahima Gueye waxoon na ko amoon na ko muy magistrat muy procureur ku mën a doon la fi daan am nga xam ne am magistrat day toog def lu ko neex waa procureur toog def lu ko neex ay nit di dee ñu jël ay doomu jàmbur tëj ci kaso bi mu dem toog nan ataam jël ay ñu yokk ay salaire am yokkal ko ay salaire am def ko ay privilège mu dem toog day nax boppam réew mi day am ay droit nañu respecté droit yi bu ñuy wax force restera à la loi day fekk ñoom ñu yor loi respecté loi yi ndax baa yi bàyyi kenn moomu ko réew mi Sénégal bàyyi kenn moomu ko dafa war a lekk la ñu taxaw tey gis nañu ni arrestation yi bëri na trop par rapport ak opposition bi est-ce que boo leen continuer nii doo leen raf rek képp ku jëf su wax rek ñu jàpp xam nga xam nga ku rep dañ ne ku rep li lay rey ngay def président yi président yi nga xam ne ni dañoo seen mujj dafa ñaaw yëpp nii Macky sa doon def la ñuy def anam moom anam bu gudd Cissokho anam fan la mujj ah ak yeneen président yoo xam ne nii nii Macky Sall yi def lañ doon def ana Sékou ana ana kii Alpha Condé Guinée Conakry gis nga doole nga xam ne moom la jaay di ko utiliser man abus de pouvoir bi Macky Sall di utiliser maanaam téye suñu maanaam séparation du pouvoir yëpp judiciaire mu téye ah, exécutif mu téye ah, ah, euh, comment dirais ensemble national mu téye ko loolu nekkul ne moo koy may jàmm li may jàmm mooy Macky Sall mooy li sénégalais yi bëgg mu jaar ci yoon teg dëkk bi ci yoon moom pare na ci ak ale su mu bàkk pare na dama ko ne réew deux mille deux mille vingt quatre yaa doon président Sénégal dalay na ñëpp waaw ñun de li ñu tax a jóg fii ñu ñëw fii du Ousmane Sonko suñu bopp moo ñu fi ñëw ndax Sénégal instant yi moom mooy jooy Sénégal moom mooy jooy jamono ji te instant yi jeunes yi jeunes yi kese ñoom ñoo war a jóg pour xeexal seen bop ndax euh, pour l'instant nii li ñu metti nii te koy dund nii yaakaar na ni bu fekkoon suñuy baay ak suñuy maam xeexoon nañ ko benn moment kon tey jii duñ fi nekk nii di ko xeexaat mais nag fi ne instant ni li nga xam ne moom moo nu tax a jóg Macky Sall mii xamul ko woon te ni bii day maslaa ak moom jàmmaar loola xam ak moom parce que ki nga xam ne moom warul bokk si benn mbir moom te moom lañ war a def ba pare di taxaw di tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk kooku lañ war a mën a waxal fii nii buñ fiy ñëw ñi fi nekk ñii ñëpp ils sont majeurs et vaccinés ñu mat lan yaa may dégg dara ñorul leen liggéey kese noonu man ñëw ni maa ngi jóge ba côté Jandeer dama bàyyi sama liggéey ñëw fii ngir lan xeexalu ma Ousmane Sonko sama bopp laay xeexal li may bëgg nag ñu ñëpp ñu xam ko saa su ne sëriñ si fi nekk nii di wax li ñuy wax lu rafet la lu normal la ñoom nañ leen jàppale ni leen di jàppalee nag mooy ñun ñëpp ñu fexe taxawu si dëgg buñ degoo si dëgg dox si dëgg rek fi ñu bëgg a dem ak fa daal loolu daal laa amoon si li may wax daal man Kaani Cuqali laay waxal Macky Sall yow Kaani Cuqali yow ranga yow so yónnee du si Sénégal yaa ngi fontoo nit ñi si si si xaw ma ab si la xaw ma ay bëlootkat ñoom lu ñu def nii ah si si moom ay si si la wala ay bëlootkat nga wiñu ko ñëw si alkaati yi ñoom population bi leen fi teg wala Macky Sall ak saa ci Macky Sall lay àndal duñ ko nungu nag ñun xale yi ndaw la man ni may gis nii sëfoor laa sama oto laa dama koo gaare ñëw fii pour xeex pour dëkk bi normal man samay doom moo ma tax a xeex mais du pour man nga réew mi lu fi nekk dundu gee xiif fi nekk man maa nga jógee ba jandeer samay tool laa bàyyi samay oto ngi fii di daw man transporteur laa su ma neexoon du ma ñëw fii di rey sama bopp mais barke alxuraan Macky Sall li muy def teg ko fenn loo daa jënd fukki téeméer na bàyyi nit ñi te bàyyi li muy def bàyyi doomi jaamur yi muy jàpp di tëj du yoon du dëgg si sis boo xam ne comme li ku génn nu jàpp tëj loolu mooy lan waaye ala kulli xaalin dina fi jógee billaahi wallaahi wa taalaa di wax Ousmane Sonko nag yàlla moo wax si alxuraan inna allaha maa sabirin yàlla way muñ ñi rek lay àndal na jàpp foofu rek incha allahu rabi mënul wax a wax Macky ba du wàcc bu wàccul ñun ñoo koy wàccee farlaa la force salaamaaleykum wa rahmatullah bëgg Sénégal avant waaw mooy bëgg senegaal waaw ak tamit xeex loo xam ne nii maanaam depuis 1960 ba léegi wala avant 1960 sax la ñuy wax mu ngi fi xëy na Macky dafa ñëw nag gën a fës waaye ñi fi jaar ñëpp daanaka mën naa ne ñoom ñëpp a waaw léegi nag. li tax ñu ñu bàyyi suñu yitte yëpp pour ñëw dañ daan wax politicien daanuñu déplacé politicien daanuñu booba ndeke gars yi dañu dugaloon ci benn gaam goo xam ne nii ñun xamuñoo la xew mais nag bi ñu demee ba gis ne ndeke ñii dañ ñu bëgg a dugal ci politicien du ma yëkkati bu ko defee ñoom ñu ne politicien di lekk suñu alal di yàq suñu réew loolu la ñuy yóbbu ba nga xamante ni bàyyi nañ réew bañ yes si Macky Sall la président Macky Sall la sax laay wax bi mu ñëwee moom dafa gën a fës waaw bi mu gënee fës nag sonk ñëw xippi bët yi ba pare taal xel yi ñu xam na nag ndege sonk mii li muy wax même bu dee moom nekkul ci sax ñun li muy wax moom ñun fekk nañu si dañ ñun dañ cee ne loolu moo waral suñu taxawaay fii te taxaw taxawaay bi nag ku taxaw pour bëgg koo yàq moom ñun suñ bakkan lañ jaay ndax ñun dañoo jàpp ne dañuy lii dañoo jàpp ne koor gii ñu jëm ni mu nekkee farata wallaahi sama taxawaay bii noonu laa ko defee farata fii ma taxaw nii man noonu laa ko defee farata ndax xamul tax nit balaa ngaa tala julli tala faju tala woor da am jàmm te lool dara amu ci réew mi du jàmm du yoon du dara fi ne kenn ku ne yaa ngi naan jàmmu jàmm te xamuñ ne nit boo dencul dépassé ñaari fan ñetti fan na yaa ngi am jàmm koo dëgg koo xam ne fii koo fi gis daanaka ñi fi gis yëpp seen bàyyee leen yor dem ba sol sa daalu bàyyi nag te mënoo dara ba pare naan am nga jàmm waxoo dëgg yaa ngi nax sa bopp bu fekkee li ñu yaakaar ne mooy jàmm mooy ay bali tàkk ak déedéet jàmm du loolu jàmm mooy kenn ku ne sañ a dox heure bu la neex yaa ngi dégg sañ a lekk heure bu la neex sañ a naan heure bu la neex faj sañ a faju heure bu la neex mais loolu amu fi tey fi mu ne da ngay lii may wax nii sax tey fi mu ne nii rek buñ ko déggee tey ñëw jël si ma loolu du jàmm lool bu réew demee ba tollu foofu nag ku woote te woo ñu si loolu dañuy ñëw te ñun loolu lañ gis ñun maam sonk bu ñëwee bu ñëwut sonk xas nañu yee ba pare bu ko neexee sax na toog këram ñun xeex bi mun nañ ko xeex ndax ñun xeex bi jaamu yàlla laala la wax moom lañ ko def ku ku def sa xeex jaamu yàlla nag doo xalaat ay danaa di rek buñ ma dóoree balak ñun loolu romb nañ ko bu yàgg ñii nefee di lekk suñu alal ji ba pare te ñoom xalaatuñ dee ñun ñu nef yi ñun dawaluñu oto bu rafet dëkku tëdduñu fu nooy lekkuñu amuñu dépasse lépp seer ba pare ñu bëgg ñoo wax jàmm non non non dañoo jaay suñu laay ba pare Macky Sall nag xam naa ne li muy def ni yëpp dafa rep waaw moom il faut mu di ko def far force la ndax dafa war a dee te boo war a dee fañ la war a ray nga jëm fa laay yow yaay yow yaay def luy tax nga dem fañ la war a reyee te Macky Sall ci lool la ne moo tax nay xuus rek moom fi mu ne nii dafa war a dee affaire yi dee gi sax moom xam naa ne yàlla yàlla xaw na koo jàppale tuuti ndax deem gi mu ngi yàgg quoi liñ bëgg mooy li muy def ko def benn yoon rek ñu waaw tàggoog moom benn yoon. tey jii nga déggoon Ousmane Sonko ci meeting bu Kër bi euh, mu waxoon ne tey jii àgg nañ ci point final bi wala àgg nañ ci terminus bi fi mu ne nii moom dootu doon may dara wala tey jii nii moom li mu bëgg rek ñu dem ci ndax gasa gasa la woote. déggoo loolu bañ ca yeggee dafa yàgg gàtta gàtta gi bañ ca yeggee dafa yàgg xëy ay suure yooyu noonu xëy na moo tax mais yàlla xam na ne gàtta gàtta gi bañ ci yeggee dafa yàgg moo tax ma ne la fii ñi fi teew amut kenn ku fi dërëm teewal te da ngaa bàyyi sa xëy ñëw da nga bàyyi sa liggéey am nañoo xam na sax fi lañ fanaan maanaam nit buy xalaat bëgg a loolu xanaa nga ma buñ nee fi naan mbooloo ñun ñu ne fii rek mën nañoo déstabiliser réew mi jarul mbooloo ñun li ñuy nekk dañ cee dëggu te ñële la ñuy ne dëgguwuñ ci gis nga ñett ñu ne ci luñ dëgg ak mille ñu ne ci lu dëgguwul du ñu benn ñun ñu ne fii rek buñ bëggoon a wàccee Macky Sall mën nañ ko wàccee mais xëy na yàlla moo ko fi desandilal ay suur ci loolu la nekk di ko farataat nii mais xamu ko nag mais deem dëgg bu jotee li muy bëgg a def nii da koy def par force ñu tàggoog moom tey jii ñu war a jëm ci procès bi le 16 moom Mame Mbaye Niang ñu jàpp ne tey jii ni ku mel ni ministre de la justice génn na barki démb sax wax ne condamné Sonko ba pare ko bu ñu ko ko sursis nga ba entré ko mooy Macky wàcc na rek loolu kay man loolu laa wax loolu de mooy Macky wàcc na kii nañ Sonko <laughs> tey jii Macky wàcc mais Ousmane Sonko dem tamit day dem par force Macky ñoom ñëpp la ñuy idaan ñoom identifié nañ leen ba pare ñoom ñëpp ñoom ñëpp fin na affaire yi déggoo la ma wax ñun fin na buñ dee léegi sax ñun pour ñun ñun ñu ngi àjjana ñun ji jaat la ñu nekk nii wallaay lancim projet bi xoolal heure bu mu ko def jàmm rek lay may sonko am jàmm mayit ko jàmm doo am jàmm sonko kii kay Macky Sall da nga yaakaar ne Macky Sall la bu kiiyee sonko nii day wàcc ci jàmmam noonu noonu noonu rek yaakaar danaan sonko du dem siise nañ ko moom mu dem doxi soxla mais day yomb. mais tey jii mais tey jii noo gisee ku mel. bu fi bu bu fi amoon mag am na fi rak am na fi baay am na fi bàjjen am nañ fi lépp taxaw pour réew mi a am jàmm mën a ñoo am jàmm nag ñun ñëpp ñu bokkandoo nga xam ne moom mooy Mansour Faye di ko tuumal ne 98 milliards yi nga xam ne moom la jël. waaw moo moom daanaka dama ci amul xam-xam. Bougane moom man Bougane moom dama ko gëmatu. waaw Bougane moom bu fekkee damay wax yàlla rek tax Bougane moom moo fi ñëwoon na maak Sonko ñoo fi bokk idée ak xaw ma nan sàll ñoom ñett ñooñ la waxoon ñoo bokk idée ñu dem ba ci biir idi jënd ko dik ko post mu dem ci idi kooku nag ñun senegal yi dañoo toll moment boo xam ne li ngay wax dee ko xool su amee benn faay rek banañ la boo ko yëgee boo ko yëgut banañ Bougane dañ koo bu yàgg gis nga fi ne li muy wax ci Mandior Faye donte ko dëgg la sax ñun gëmuñu ko xamul tax gëmuñu ko sax parce que dañ jàpp ne day teg diil pour ëllëg bu ñu yeggee ci élection yi suñ xalaat lay waxee pour bu ñu yeggee ci élection yi ñu woo ko moom it ne dañ koy àtte daan nañ ko mënul dem kon son bu buñ ko daanee garaawut seen diil boobu ñun lañ jàpp ne ci lañ ne moo tax bugaan fi ne même bu waxoon dëgg sax man goo mën a dëgg la waaw. Euh, maa ngi nuyu ñëpp man maa ngi jógee Padoa ñëwoon fii démb si guddi nekkoon ci nekkoon si organisation bi ak installation bi ñu nekkoon fi nag ba 2 heures du matin 3 heures du matin am ay jeune APR yu fi ñëw attaqué ñu. ba gaañ kenn su ñun ba gaañ ko xeer ba xaañ ko xeer fii si ndox bi si ginnaaw ba mu toj gaañ nañ ko ñu yëpp si guddi gi yëpp ko hôpital dégg nañu nag ñu ne ñibbi na këram waaye du ñu am foofu dañu topp mbir mi ba xam fan la toll ñoo ngi fi woon nekk ci organisation bi bu ñu xëyee nag la ñu ñëwaat gis affaire du évoluer mais li ñu teewal fii nag xëy na meeting meeting ñu ci bari meeting lañ koy tuddee waaye lii réunion familiale la ñoo taxaw waxtaan suñu biir wax fan fi ñu commencé ak fan la ñu jëm loolu je pense que am na si droit te kenn amul sañ sañ aussi tere ko Pastef nag mu ngi topp ay ay parce que ñun fii ci Patte d'Oie ñoo ngi def suñu ay enrôlement di xool primo votant yi nga xamante ne nii déwén incha allah rabi avant le avant 24 février dañuy am 18 ans ñu fexe leen inscrire ci liste électorale yi xool yi nga xamante ne nii aussi. ay victimes la ñu wala peut dañoo sàcc seeni i def ci ginnaam non inscrit euh, dans les listes électorales ñu fexe ba ñu dugal leen ci liste électorale yi ñu mën a euh, vote yi incha allah rabbi 2024 ku yàlla def ni ko moom moo gën ci sénégalais yi te baax sénégalais yërëm sénégalais yi koo xamante ni bëgg na Afrique dina dimbali africain yi xeexal der bu ñuul incha allahu bi mu nekk ñu teg ko ci réew mi te njort nañ ne Ousmane la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te par nañu ci accompagner ko ci lépp loo xamante ni projet bi muy dugg la wala loo xamante ni nii lu mu jàpp ni lii waru ci dem moom kase ñu dañu ñoo taxaw man mi dama bàyyi sama liggéey keneen ak kenn bàyyi liggéeyam ñu ñëw fii nekk fi dem ci guddi ba tey man mi doxee quatre heures temps presque nelaw ma ko waaw attaqué nañu waaye bi ñu demee nag bi ñu fi ñëwee li ñu fi fekk bi ñu demee desuwaatuñu waaw. tubaarkàlla tubaarkàlla jërëjëf yow it nga nga nga feeñal sa sa sa bëgg defe naa. ci kanam waaw ndax ku gis ñu bëri tey ñu jàpp ne mbégte moo la fi indi. waaw waaw waaw waaw mbégte mu bëri sax affaire yi moom gis na ko la parce que je je je jeunesse bi ne lii ku mu doyul rek doo koy wax ak ma xam-xam ku mu doyul xam nga boo xoolee xale yi fi ay 20 ans 25 ans 40 ans 45 ans rek ñoo ko ko ko ñëf nekk kon l' état du Sénégal dafa war a xool ci lii bu baax a baax a baax te xam ne ndaw ay ndaw ndaw réew ndaw ñoo ko téye kon da côté Macky Sall le président Ousmane Sonko ndaw yi ñoo ko téye seen bopp ñoo ñoo ko bëggal seen bopp te yaakaar naa ne kenn mënu ki dara dara dara waaw tey jii noonu tey jii noo gisee tey jii nii ndax jeunesse bi jay teew en tant que tey ñu euh, jot pour nga conscientiser leen bu ngeen bëgg nag pour fal Ousmane Sonko ñu bëri ñoo ngi ñëw te way ñaan ñu bëri tey ñu ngi wax ne bokkuñ ci liste électorale yi loolu liste électorale ko mais daanaka ci weer rek la yem que jàppoon loolu noonu dafa nekk ba léegi ci ñu dagg politique waaw mais loolu c'est injuste parce que liste électorale normalement dans euh, avant trois daf ko war na ubbi bu yàgg mais un mois do doylu pour les prix moo loolu kon loolu tamit ñu ngi koy joolu ak institut boobu xam juróomi c' est anormal normalement moom ko normalement li li li si war nañ ko ubbi depuis trois mois mais actuellement ministre bi nee na te te un

moom boo bokkul mënut a téye Sonko boobu dem mënut mënut a nekk. mais moom mu bañ a bokk en même temps mais Sonko bañ a bokk it moom moom. loolu day bokk Sonko day bokk seen lépp yëpp xay xaw ci moom lii yëpp tey su ko bëggoon a délogé dañ ko kon na xoolaat boppam bu baax jeexal na dafa war a dem na fa dem lépp waaye waaye moom ba léegi waxagul ne dafay bokk ndax waaye booyam rek ñoo taxaw ne fi mu ne moom moom lu mu wax ca xayma ko la ko dégg moo leen wax loo loolu mooy le problème waaw ndax gis nañu ko ku rek na du warta am troisième mandat daf lay dàq moo jug jug ba bi mais sénégalais duñ ko may surtout la jeunesse duñ ko may dafa jeexal na dem bàyyi réew mi ci jàmm ko comme ki jàmm la ko jote woon na ko bàyyi ci jàmm waaw et la lutte continue ci moom seen bakkan lañ joxe pour le projet de Sonko ñun projet na waa APR jël nañ ay nervi pour ñu ba dañuy tàrkal Ousmane Sonko que ñoom trois de matin la ñoom daaw am na sax ñoom ñun xam nañ leen ñoom ñu ci koñ bi ñun passé la ñun ñu ñooñu ñooñu benn booy sax nee nee na ki ñun dañoo fenn xaalis waaye ñun banañ parce que tegul fenn am am utaaw fee benn booy wax ne ne moom nee na ñoom moom dañu leen joxoon ku ne ku ne cinquante mille mais parce que xam na ne lii du ku du yoon waaw ba waa APR mënuñu fee bàyyi dara waaw fii yëpp am na ñoo xam ne dañoo ñëw xeex ñoom bu ñu bëggee loolu moo fa mais mais mais est comme deni ne provocation ndax ku mel ne Ba premier ministre fi la dëkk ministre ministre provocation waaw mais ñoom ñoo fay booy mi mu ñu ko bu booy yi am nañu ñoom daa ko ne ñoom ñoom ñëpp nee ñu parce xam na ne fii ñu dëkk seen seen fi nekk ak seen baay ñoom xam na ne ñoom du leen joxoon digri ku ne cinquante mille ñoom ñoom booyu ñoom ñax loolu fii léegi ñoo ko wax fi léegi kon ñoom daanaka loolu tamit booy ne seen xaalis te booy xam na ne ñun ak ñoom ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñun ñëpp c'est la jeunesse qui gagne doxandéem si dëkk ñu ngi mel ni ñun la ñuy jàpp di tëj ñun la ñuy jàpp di rey ñun la ñuy jàpp di torturer ñu ngi mel ni dëkkuñu si réew mi waaye nag bu ñu lépp lu ñu mën di def si ray si rek la mën a yem te buñ ñu rayee nag xolal mënuñu ñu yóbbu safara concernant dossier Mame Mbaye Niang ak Adji Sarr moom loolu moom ay ay procès politique la amaana ñoom dinañ def seen lépp luñ mën di def pour pour pour jéem a disqualifier Ousmane Sonko waaye ñoom lépp lu ñu andi pour disqualifier ko ñun dinañ andi le double pour pour protéger ko. fi kenn rek moo mënul bokk muy Macky la tudd sant Sall te du bokk incha allahu rabbi ñun nag par force dañuy bokk par force dañuy bokk ndax ay sénégalais lañ kenn moomu réew mi Macky Sall moo mënul book mais Sonko day bokk par force. suñu bokkul nag xoolal barke alxuraanul karim xoolal réew mi amaana waaw dina demee neneen asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar bàyyi rek nga wax sa tëj yi sa bëgg-bëgg. waaw di la delloo ziar grand frère petit frère maa ngi lay ziar bu baax. <laughs> di leen ñaanal rek yàlla sunu borom sutu suturaal leen ba lépp li bëgg ngeen ko ci métier bi yàlla sunu borom may leen ko quoi. man nag bon ñett rek laay wax Macky Sall lu mu wàcc dinañ ko suul lu mu bax dinañ ko ŋeer bari ko diwtiir bu mu tuuru ñun jeunes yi dinañ ci borongu ba mu wow koŋ hmm. waaw te aussi tamit di ko ñaan tamit mu libéré Pape Ndiaye quoi ak sunu maman Amidia man maman Amidia man xaw ko quoi. mais xam nga ci réseau xam nga ci internet bi ak plateau télé yi ci laa koy seetaan ak affaire yooyu noonu quoi ma gis tamit ay doomam xam nga di wax ci télé yi ak affaire yooyu noonu quoi te man ma am doom boo xamante ne juróomi at la am quoi xam nga man ma nekk ci àll ma xam doom ak waajuru xam nga bu ñu soree na affaire yi di mel quoi ma koy ñaan rek moment Amy Dia na ko libéré quoi xam nga yeneen ñi des nag après ñu lijjante affaire yi quoi mais moment bi bu ñu sañoon suba saamu libéré ko quoi ak journaliste Pape Ali naa naataango bi quoi ci réew bu ñu demee rek bay jël ay journaliste di leen dugal ci kaso bi rek mooy réew moomu xam yàqu na quoi xam man nañoo jàpp ku ne Sonko saa bu ne neexee mën na kaa jàpp mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy xamal askan bi li nga xamante ni moom moo lëndëm bu leen dugalee ci kaso bi rek mooy réew moom moom xam nga sayoo di leen gërëm di leen sant nag di leen ñaanal jaam ak salaam ak xéewal yal na la ko yàlla suñu borom defal quoi jaajëf jàmm